dal leen ak jàmm ci info 221 seen bi leen di jox xibaar yu wér te abu abonné leen ngir dara bañ leen raw mangook ay manifestation yu ñu ràññee comme ni ngeen ko gisee nii ci vidéo yi di ab fitna bi sa suufalee ca wakkaam jamono ji nga xamante ni 19 euh, heures daal dina jot nag euh, mouvement bi tuddee seen bopp moo melu wakkaam ñoom ñoo doon sàkku rek ñu jox leen euh, suuf si nga xamante ne rek dañ ko jébbaloon ñeneen ñoo xamante ne moomuñu ko ndaw yooyu sax nag nekk ay yu bëri ci ay ndaw toll nañ ci ay téeméer ñoom ñoo doon manifesté wu ci mbeddu ri ci mbeddu wakkaam yi ñoom daal lu ñu sàkku jamono ji moo di fexe rek nag ba ñoom seen suuf si nga xamante ni seeni maam ñoo ko moomoon ñu séddale ko ci anam boo xam ne yëgguñu ko bëgg nañu rek ñu defal leen ko mu waraloon nag tey jii ba ñu wàccee si mbedd mi comme ni ngeen ko gisee ci vidéo yi fitna yi bari woon na lool waaye tamit takk der yi jot nañu sànni ay grenade lacrymogène ndaw yooyu sax nag daal di baari yoon bi ba dem beeg bi xawoon sooxe lool ñu daal ay pneu lu ñu bëgg daal ñoom nee na tànk jox leen suuf yooyu nga xamante ni ñoom ñoo ko moom rek duñu tàyyi benn yoon rek di wàcc si mbedd mi ah, di manifester waaye nag takk der yi mujjanteel bi mbir mi mujjoon na métti yi ndax nag grenade safoon ba ñenn ci manifestant yi daw waaye terewut am na ñi nga xamante ni ñoom dañu ne woon duñu daw faw rek nag ñu dégg leen rawatina ki nga xamante ne mooy seeni maire ak autorité yi nga xamante ne ñoo sekk wakkaam suuf soose yi nga xamante ne seeni maam ñoo leen ko bàyyi woon jamono ji gis ngeen ko ay xeer ay pneu yoo xamante ne taal nañ ko loolee saxaar gu métti googu sax tiital askan wi ba ñu bari sax ñemewoon woon génn ngir doxi seeni soxla jamono ji ñu wax a génn nag dal jot na faa am tuuti ginnaaw ñeent ci ndaw xamante ni dañ jàpp rek ni mbir mi dañ koy tegagum waaye nag du tere ba tey daal ñu woyal xeex bi ñu dëkk ak yéen ba tey ci xibaar yi mbokk yaan tax na Infos 221 Aliou Tine mi ngi avertir Ousmane Sonko ci plainte bi nga xamante ni moom lay teg ci ndodd ki di Madiambal Diagne moom jiital Africa Jom Center jot na ginnaaw ba ñu xamle ni Ousmane Sonko dafay bëgg rek porter plainte ki nga xamante mooy journaliste bii di Madiambal Diagne jot na sa joxe nag xalaatam ci li nga xamante ni dina ci am nag dina ci jur ab jafe-jafe nee na ko nag nga def ndànk ndax nag prison ngir ñii di dem euh, leader politique politique yi ak ñi nga xam ne rek euh, ñu di Euh, nag journaliste yi app nag couteau à double tranchant maanaam ñaar paaka ñaari boor la Alioune Tine nag ci Twitter am la daal di bind rek nee na avertir na rek autorité yi en cas bu ñu jàppee kii di Madiambal Diagne ndax nag prison xam ngeen ne lépp la fa nekk Madiambal Diagne mi héros la nit ku am xam-xam la te ko mun na nag defante la rax ndax moo tax rek daal ñu def ndànk laata ñu yóbbu plainte bi xool bu baax a baax la nga xam ne moo ci war ndax bu ko deful Ousmane Sonko ab figure politique la te moom journaliste la daanaka lu mu xam ci réew mi bari na te mun na jaare côté bu ne ngir rek mun ko yàqal wala sax na kii ko xam naa daal guerrier la héros la noonu la ko Alioune Tine tuddee ndaw yu bëri nag daanaka fii ci Afrique jot na leen na xamal lu bëri moom ma jambal Diagne yi nañ ko moytandiku daal ci lépp loo xamante ni usman Sonko mi ngi koy def jëm ci plainte bi nga xam ne jot na ko fësal ndaxte nag buñ ko toppee ba ci biir dina indi jaxasoo te nag ki ñu war a plainte doon na ku doy war koo xamante ni daal gànnaayu na lu bari loo xam ne tey bu ko fësalee xëy na coow mën na ci indaat